waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk Sénégal Assane Diouf seen frère ah, di mbokk ci Sénégal di doom ci Sénégal di bañkat ci Sénégal di ñëw ci benn actualité bu am fii Sénégal rek ma war cee wax sama sama xalaat tuuti ah, président Bassirou Diomaye le premier ministre Ousmane Sonko. man la seen frère Assane Diouf dañu fay toog benn sept ans sept ans di xeex benn combat boo xamante ni defe naa ne man bi ngeen ni commencé wala man bi may tàmbali di ñappal ñappal boobu yéen egsee gu leen woon sax ci gat sa sa ma gëm ne yàlla may nañu ndam ci xeex biñ doon xeex te xeex boobu ñu doon xeex dafa am ay nit yoo xamante ni dañoo taxawoon ci wet ga ne ñoom li ñuy xeex mooy dëgg ñun li ñuy xeex mooy fen ba yàlla may ñu ndam tey fi may commencé nag mooy ci seen slogan ba tey parce que bu ngeen demee ba taxaw ne jub jubal ak jubbanti man ma dolli leen ci liggéey jub jubal ak jubbanti liggéey bi day tàmbalee suñu biir kër yi suñu biir néeg yi jub jubal jubbanti bi day tàmbali ci suñu biir kër yi suñu biir néeg yi dégg ngeen kenn ku bokk ci yéen benn doomeram bu nekk fële ci Amérique bu taxaw ne génn na six cent millions de francs un million de dollars pour ay doomu sénégalais dee man bokkoon naa ci ñi taxaw maanaam xeex pour ñu bàyyi ko bokkoon naa ci ñi taxaw xeex pour xam nga fépp fu sénégalais nekk am jàmm dooméram boobu taxaw publiquement ci ay fen wax ne moom bokk na mooy maanaam moom moo doon nit ki nga xamante ni mooy jël alal di ko yónnee pour ñuy rey ay doomu sénégalais pour ñuy taal ay kër di taal ay osan di taal ay bitig di taal ay estation état bu senegal taxaw ne lii la def ku mel ne Félix Antoine Diome ak général Moussa Fall ñu taxaw ne leen lii ngeen wax dara du ci dëgg xeex ak ñoom man man maay benn doomu aadama boo xamante ni ca tribunal ba Amérique New York City Pape Alé Niang seede la man mii la ñu woowoon ma jël sama téléphone defal ko témoignage pour ñu bañ ko refoulé dooméram boobu moo toog tey pour xëccoo benn place ma taxaw ne leen place bii mérito wu ko mu génn traité ma de tous les noms tudde ma golo gi te golo gi moom la toppoon ba sénégalais yi xam ko ci golo gi la amee tur moom doomeram boobu mu nekk sàcc boo xamante ni leeralal na senegal yëpp li Assane Diouf di wax ndax dëgg la wala ay fen ku amul liggéey amoo métier xëyoo gontoo amoo bitig booy xëy jaayoo defoo dara ne génne naa un million de dollars financé ko pour benn combat ba pare combat boobu defuloo ci lu dul rey ay doomu sénégalais moo tax dama leen di delloo siwaat rek ci liggéey jub jubal ak jubbanti liggéey jub jubal ak jubbanti boobu dañ koy tàmbalee ci suñu buntu kër yi ak suñu biir kër yi président Bassirou Diomaye dooméram boobu nekk Amérique bu amee sañ-sañu taxaw ne da doon na jënd ay cocktail Molotov doon na yónnee lu tolloog six cent millions de francs CFA un million de dollars one million dollars un million de dollars ci koo xamante ni dafoo lu dul délivrer nokkos ñun ñëpp ñu xam ne day fen mais nag def na ci xaalis waaye la mu wax day fen parce que deful lu sàcc Amérique te même bu dee dëgg sax xaalis bu ñu sàcc xamali ma lax du financement parce que dangaa dem sàcc ay alalu jàmbur kon président Diomaye man Assane Diouf le premier ministre Ousmane Sonko gëm naa ne Bah jaxate li mu wax ëpp na trop mais gis nañ lu ko gën a ëpp doole pour ñu fekk nit kooku fa mu nekk teg ko ci yoon moo tax libéré leen Bah jaxate nu mu gën a gaawee ngeen topp ki nga xamante ni moom moo ne moo daan joxe njëgu essence ak njëgu cocktail Molotov parce que état continuité la yéen a inauguré BRT bërki démb état continuité la yéen a inauguré yeneen liggéey yi fi mag sàll teg état continuité la dimbali leen sénégalais yi ngir yàlla ngeen boole ñëpp teg leen ci yoon pour senegal mën a jubbantiku Bah Diakhaté waxu fi lu ngeen fi waxul lu ne dégg nañ ko fi pour rek xeex ba ci man mi toog mais dañ doon xeex ne lii mooy dëgg gëm naa ne li mu wax du liberté d'expression mais nit dafa wax lu ko gën a garaaw ngeen war cee concentré wu ki doon rey doomu sénégalais yi di yónnee alalam ñuy taal di lakk di rey ay nit état continuité la doomeram boobu man maa ko témoigné ba refoulé ko mu jóge amerig ñëw Sénégal barki Seydina Mohamed tey man maay golo gi doomeram boobu bu ko sénégalais yi xamee yàlla ak Assane Diouf a tax boobu bu ubbee paas tudde ko one million wan ak man Assane Diouf maa tax kon doomeram boobu moom ngeen war a njëkk a jubbanti ci seen liggéey jub jubal ak jubbanti foofu la war a commencé ki doon rey doomu sénégalais yi te kooku man maa njëkk a taxaw na leen doomeram la ay nit topp ma saraxuma fu ne pour ma bàyyi ko mu libre ñama boo waxee moom day mel ne yow opposition bi ngay xeexal nangam nangam ma dem ba dellu ginnaaw ndax dama am ay kóllëre biir Pastef te mu wóor ma ne doomeram bi bokkul ci Pastef ci ex Pastef la bokk parce que ñi doon taal ñi doon yónnee ay essence ñi doon yónnee ay cocktail Molotov ñi doon jël seen alal pour ñu taal Sénégal ñi doon jël seen alal di ko jox xale yi ba ñu ciy faatu ñooñu ñooy ex Pastef moo tax président Macky Sall bi ñu demee ba dernière minute man ma remercier ko gërëm ko ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram parce que dem na ba xam ne ñii ñooy Pastef mais ñii ñooy ex Pastef mu jubbantiwaat yoonam teg Sénégal ci jàmm delloo ñëpp seeni droit ba pare bàyyi Sénégal mu continuer te bu affaire yi commencé nii même pas deux mois man dama ne woon du ubbi sama làmmiñ bi tant que matul cent jours mooy ñetti weer ak fukki fan mais mënatuma koo muñ parce que dafa woon naa ne niñ ko waxee lépp day sumuuf lépp day day day nooy di dox sénégalais yi di xëy di bég kenn du jàmbat même opposition bi bu bees beeg ñépp ne ah ñun kat xeexoon nañ ci lii même bu ñu amul jàmm nàngam ak nàngam mais lépp loo xamante nii moom la Assane Diouf doon bañ Bougane Gueye Dany di ko bañ xalifa Ababacar sàll di ko bañ Barthélemy Dias di ko bañ bañ ñuy woowee ay traître tey mu ngi commencé di feeñ senegal senegalu ñépp la senegal Sénégal lu ñëpp la ku nekk ak sa xalaat ku nekk ak say ambition senegal du benn réew boo xamante ni ku ne tey la nii wala lee nii la war a demee rek ñu ne la yow jaam nga wala doomeraam nga ku àndul ak ñii ñu ne la jaam nga wala doomeraam nga ku waxul li ñu wax ñu ne jaam nga wala doomeraam nga doomeraam bu mag baa ngi Amérique libéré leen baa jaxate ngeen dem jëli doomeraam bu mag bi doon rey sénégalais yi sàcc bu mag bi man sàcckatu permis bi laajuma leen dara man xam naa sama bopp laajuma leen dara ciment beeg oto yeeg taatu oto yeeg huile beeg jaayi gerte caaf sax jombuma ko parce que man liggéey rek laa gëm liggéey rek laa gëm ku xam rek xam ne man liggéey rek laa gëm kon bu amee benn doomeram bu taxaw ne moom moo doon jël alalam alalu sàcc di ci rey doomu sénégalais yi kooku ngeen war a lijjanti te bàyyi Bah Diakhaté libéré Bah Diakhaté je suis Bah parce que li ma doon xeex démb ak la ma doon wax démb moom la Bah jaxate wax tey te ñun ñëpp ñoo àndoon ne lii mooy dëgg parce que dañ doon xeex même bu waxee wax bu ëpp libéré Bah jaxate merci senegal yàlla na leen yàlla defal jàmm